alliés ñëpp doon ko woowee yaayu Ousmane Sonko muy suñu tata Aïda Mbodj kon tata yow la jox kàddu bi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 nanguwul ku mas a wax coalition le peuple du Sénégal lay waxal lu mu wax ne lu ñu def te boolewuñ ci peuple bi du am Ousmane peuple bi moo lay njukkal peuple bi nga gëm peuple bee tax nga sacrifié wu bee tax nga daj li ngay daj peuple bi moo lay fay peuple bee la gëm yow peuple bi moo la gëm peuple Sénégal kenn dootu leen nax peuple Sénégal kenn dootu ko nax peuple bee dem ba xam ne yow yaa leen ko jaral ñu jox la président tey majorité nga soxla dinañ la jox majorité fii allié amu fi ñépp Pastef lañu allié yi nga xam ne ñoo tënku ci jamaay président dafay yokku li nekk ci liste d'attente bi xaw ma nañu toll ñëpp a ñëw bëgg a ànd ak yow ñëpp a ñëw bëgg laa soutenir ñëpp la gëm ndax Sénégal la gëm Sénégal la gëm te yaa gëm Sénégal waa Sénégal dinañu ànd ak yow nga jox ñu nag liste boo xam ni am nañ ci fierté kan moo nekk ci sa liste ndeen fay jigéen ñaa ngi gis seen bopp ci moom Ami Dia jigéen ñaa ngi gis bopp ci moom duwaaye àll kan jigéen ñaa ngi gis seen bopp ci moom waaw ana borom ndakaaru ana sama doom borom ndakaaru Abbas Fall kan mooy borom ndakaaru ndakaaru gii dafa am borom Abbas mooy borom ndakaaru man nag cent cinquante député laa diggee waaye maa ngi revoir en hausse samay prétention ndax dama war réew mi te bi ma waree réew mi fu ma dem dama naan leen du ma politique ndax président Diomaye ak premier ministre dañ ma ni deer amul politique waaye bu ma ñëwee ñu laaj ma Ousmane Sonko bu ma demee Nord ñu ni ma ana Ousmane bu ma demee Sud ñu ni ma ana Ousmane bu ma ñëwee Ousseynou ñu ni ma ana Ousmane Ousmane Ousmane Ousmane Ousmane. merci beaucoup. merci beaucoup Tata Aïda Mbodj léegi nag dañuy woo ki nga xam ne moom mooy le représentant de la JPS fi ñu toll nii tey ci salle bi muy ki nga xam ne moom mooy